def li nga xam ne nag moo di petit like aimé vidéo bi ndax loolu dina si am solo bu leen di fàtte aimé vidéo yi moo ngi noonu te nag dañuy des ba léegi si ki nga xam ne nag moo di Bougane Gueye Dany njiital D-Media moom Bougane Gueye Dany ba nii nag jamono bii ma ngay wëy di continuer nag di daal si kaw ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko te nag dinañ si ñëwaat ak ay jàngat yu amaam solo ana lan moo waral mu Bougane taxawaay bi mu am daa du koy taxawee moom dafa bëgg a jiite nag li nga xam ne nag moo di opposition bi wala dafa bëgg jaar tànk yi nga xam ne fa la président Ousmane Sonko jaaroon ba am li mu am est-ce que ñoom ñaar benn lañu moom Bougane mayul dara ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko nekk nag loo xam ne daal nay doy waar lool. man da wax naa leen ko Bougane Gueye Dany mii ab carrière politique am dafa jeex bu yàgg. bu yàgg fi mu nekk nii lenn la dese li mu dese mooy gis nga li ko quitté ci ay nit. depuis bi mu ne day xaar deuxième tour daanaka ñu xoolal ñu am ful lañ ñëpp dañoo jege gëm sa bopp dem sa ñoon Bougane lan la dese Bougane mënta politique la ko naqari woon ci Macky Sall nag yëpp da koo jël boole ko een ak iñaan gi mu ëmbal ñii mun a xaaral mu yebbi ko loolu moo ko nar a yóbbu kaso te yaakaar na ne aussi dem kaso bi dana nekk victime boo xam ne dana ko yóbbu dara il est prêt pour faire n'importe quoi dem bu saga yi mu saaga Ousmane Sonko ba pare di supprimer post bi xamal nañu ñi capturé nañ ko bu yok man da suma nekum procureur duma ci autosaisir sax gon da len di tardel ben ñebale ci cin gon xamul bu gon bu xamone bopam du wax ci Ousmane Sonko ko xamne ne territoire Sénégal fofa dem mënul taxaw dekk fepp fu mu ci dem du taxaw 10 minutes te ñëwuñu ko ab xalé na ko yow lañ ko tuddé koku jafal bu toll na ni ñi am ko ci mom Oh, daf ko liggéey lu mu liggéey ñafe ko la tegu ko ci xaalis parce que bu dee xaalis ko tegu ko ci rafetaay ñu ko dàq ñoo fi nekk tegu ko ci leneen lu mu liggéey la moo liggéey xeetu militant yooyu ba am ko yàlla ànd ceeg moom nag waaw buggaan kee dani ba mu daggee saaga ndey saaga ndey patriote yi yëpp ba pare publier audio ba audio bi génn ngeen di ko dégg boobu ngeen war a dara bu leen bett ci li ko naqari nag mooy xamul politique fen bi mu fen barke démb ci saagu maram kii bi saagu saagu jabaru président bi ah, saag bi bi jar trois millions ci askan wi lañ ko jënd ndekk yoo xaram saag boobu waaw ah, matul sax trente loolu daf ko métti gis nga bugaan yàlla xam na ne yaakaar na ne bu demee ci kaso bi dana nekk victime gis nga bu wax bu fi waxee njomme bu ko yóbbu kaso sax bu demee ci kaso bi nee carrière politique am dafa jeex billaahi carrière am man de su ma doon patriote du ma ko sax faale léegi nag justice a ngi fi waaw su bu yaakaar bu saaga lay politique di kii ah sa waay su fi war def en tout cas bu ko kenn porte plainte nit di déposer plainte contre moom man xelaa man xelaluma ko kenn mais su fi waxee lu ko yóbbu kaso aussi. gaa dañ koy jàpp saañ ko ci mbaam mi toog fa la continuer seen liggéey parce que nag yëfi réewande opposant réewande moom sawaay loolu joxul kenn réew. yow yow yow xam nga xam nga xam nga bugaan xam nga bugaan euh, ziar naa la xam nga bugaan yow yow xamoo leen bugaan bugaan dafa yaakaar ne dafa muus te muusul quoi yaa ngi gis bugaan dafay victimiser wu wallaahi lancé fay xam nga lool waxoon nak fi une semaine ci gannaaw ne Bougane dafa bëgg provoquer togn bañ tëj ko ci kaso muy victimisé wu yaakar ne fi Ousmane Sonko jaar da fay jaar ba ami nit moom lool loolu fi ñu yoyu daf ko ki ta xamul ne ñii <laughs> maam ñii dañ ko raw aller retour di dem bugan bàyyi ko mu nekk ci politique politicien bi ni rek di di di di provoquer di togn di wax yu ñaaw xam nga dem lu wax ci Ousmane Sonko dafa ñaaw trop opposé wu man nga opposé wu mais ci wii privé nit ki di dugg loolu amul solo Ousmane Sonko politique euh, kii opposé wu na ba jëlee fi Macky sàll ta mosul wax ci wii privé xam nga Khalid Bougane yéen xamoo leen nu mu bëgg politique sax Bougane de fii la bëgg nekk di victime si ba gars yi tëj ko mais wallahi lu mu bëgg ci politique ci gars yi du ko am ah ko am de. te moom da amul xam-xam ndeysaan ba ba nga dee suñ bi xool di ko joxub réew kilifa du gaaw mer mais bugaan réew na gaaw naa mer gaaw na yëg boppam yaakaar na ne xaalis nag mooy lijjanti lépp ci àdduna am fi ne yii la yaakaar moom ñoo ko mën a jeexal ko niñ koy jeexalee juste mooy bañ ko jox importance xam nga fekk muy wax réer maa ngi koy day tax ne mi ngi ci dara te boobu nekkul ci dara loolu moo ko réer ko bugaan nekkul ci tous Bougane dama nga xool gëm sa bopp yow yow nan nga bëgg a mayal si Bougane Bougane yow parti politique sax amoo ko parti politique amoo ko buggaan bu xamante ne dina jël média média média ni mel média nga xam ne li ko gën a gaaw a rey mais xoolal Sen TV léegi bu def émission daanaka télévision yi sit internet sax ñoo ko raw léegi vinde ci ay vie mënul am benn vie ndax rabaisse gi mu ko rabaisse Bougane lépp lu mu am da koy opposé woo dèjà yow lo xamné yow leer na rek sa bugaan bu xamone dara dembu dina taxaw fi né dossier bi ay tiaxana ki tapal tay mool wëlbatiku et puis ma leen rek ma ci metti lim ci lim jël touba bu ko raaxale ci affaire bi bëgg ci quoi c'est que dafa xamul dara waaw <coughs> bugaan dafa defe ne am na te amul dayo patriote yi nak ñoko bëgg jox dayo parce que ñoy def bu waxé ñu génn dem ci plateau yi responsable passif yëpp dañ ko wara ignorer kenn waratul tok ci plateau nan da ngay ci de même que plateau télévision bi gis nga ni ko gaay yi boycotté noonu am ful la boycotté ko on na continuer légui nak ñu sétan ko ak yoon ndax dana fi wax lo xam ne kenn du ko porte plainte yoon moko ko naan ci dugal ci kasso bi su bobu na xam ndax dam kasso day tax nga victimiser wala nit yaay liggéey lu tax nga am dayo bu doon saga rek bu kan bam fi génnee audio daggal fi patriotisme saga publier ko ngeen wara paré ci mom mën du fi wax dara lu ma bukan nena naa la audio moom dina fii te fii ngeen dëgg muy daggal saaga ndey Ousmane Sonko wala Diomaye Faye lu leer laa la wax no bu fi defee lu wara a tax ñu tëj ko moom man mom dama ne man dama ne bu ko kenn porte plainte ci ay propos am nañ ko bare mais dana fi wax lo xam ne nii moog yoon ñooy am problème yoon na ko ci dugal dèjà mi ngi ni tëdd ci impôt yi yow gis nga si kaay ma wax la nak publication liste bi gis nga ñeneen ñi sama gaay ñi ngi ñaxtu ci wa TFM li la ministre bi def dafa met daf leen dumate seen loxo lool leen xam nga nekk ci nguur di maral nguur dégg nga ne ci nguur doo wax dëgg askan wi di ñu lay jox xaalis ngay bañ a fay impôt ñu bala ci impunité boobu ba nguur googa daanu ñi ñëw génne say loxoor démb gis nga may mën a may mën a nduur fay muy daanu yesi ndax ministre bi daa génne seeni données personnel kenn génne fi données personnelles alal askan yu lañu téé bañ ko fay gaay publié ko gis nga loolu lepp daf leen di metti xamatul c'est bougan il est dans tous ses états amatul contrôle ci limi muy def amatul contrôle ci limi muy wax lama njaay bougan bougan bu buré lay waxe bu bu mo quoi ko bu buré do xam xam bougan buy wax nga xam amul ben pertinence ben pertinence te gis nga nit li gëna metti ci aduna moy nit yalla defal ko dara nga dang koy bañ loolu la ko nar son sonal sonko sonko lu gu metti geeg wax njaaxum yeeg buggoon ba xamoon dara élection yi fii gis nga ni mu taxawee ba mu ne day xaar deuxième tour nga war a jël position man mënoon naa d'accord sax mu jël position ne amatu balaa laa àndal loolu lépp ay gain la quoi ay vision la xam nga ci mën nga ta mën nga taxaw mais élection yi yow yu élection yi dem nekk bipolarisation yow ñoom Dame Mbodj ñoom Cheikh Bara Ndiaye mën a taxaw ne la opposant du fi du fi gagné bureau de vote am hmm? ay simple citoyen di ko wax ñëpp gisoon bipolarisation bi muy ñëw buggaan bëgg a taxaw naan day xaar deuxième tour hmm? kooku fan la ko xam amam féete te sa amul xam amul pertinence waaw léegi nag victimiser wu moom victimiser wu mooy Ousmane Sonko lam mu Ousmane Sonko dafa yeggoon ci tension am ak Macky Sall mo yeggoon ci fo xamne ne da nga aller sans retour la won Macky Sall fimu mu neena du bari day dem jusqu'au bout Ousmane Sonko régime bi yag na ko foo xam ne nii na reculer yow taa moom hmm? bu yakare na mom ci contexte bobu la nekk oh? déjà bopam lay lor rek ndax sa bu waxe nit ñi dar seen gémmiñ bopam la nek di yak ni taxamuko mais li gëna am importance mo responsable passif yi ñoo war ba di tontu atagam yu basees yi tok na patte di sétam seetaan xeyna boy ci réseau sociaux mo mënuñ ko ñako a tontu waaw parce que déjà ki nekk fi rek Mollah Morgan mi ngi ko yéeg yéeg bo xamni dem na sax bay jël ay ba jël numéro di partager man saa yi bugaan daal la ngi noonu bugaan bugaan ku ko topp ku ne sa bopp.